alhamdulilah alkarim silmilan alastihad bifrod wasunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ñëwaat ci mille 509 bi awnillahi wa tawfiqi euh, ak si woon démb ci waxtaane euh, coow yu bari yi am jóge ci màggal ga gàmmu gi ba tax am ay mbokk yoo xam ni dañoo daje ci grand théâtre di wax ngir lu dalal nit ñi di leeral ñoom seen taxawaay ak jullit ñi waaye di teggi tuuma waaye di wone ay jubbanti yoo xam ni jàpp nañ ni war nañ ko jubbanti loolu biñ ci sàkkoo taskiir indi ci ay jàngat ndax nu ko jariñoo jàngat ñalaan yi kenn mënu koo jeexal ndax tomb ya nga xam ne moom la seen kilifa nga doon ndox dafa bari euh, la nga xam ne mooy lu urgent urgent nu war ko caa jële mooy lislaam ñi ko yàlla bindee te jàpp naa ne noonu la gëne mooy li ñuy tuddee ay ngir nga xam ne bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa nekkee amul woon mashabu Safii mashab Malik mashab nanga parce que booba jëru ko mooy eh, sallallahu alayhi moom mi ngi fi lépp moom la mi ngi tàmbalee ci moom bi mu fi nekkatul nag ci lañuy askanale diw mii géeju ci alxuraan lool man caa indi ay eh, ay ay ay ay déggin yu yaatu te lépp jub ñu tudd ko mufassirul Qur'an ku kuy firi alquran ci lañ gisa nit ñu géeju ci ay ay xaddis yu rot yoo xam ni wuute lool waaye moom mu xam ko mën a topp càllale ga ba ca sang bi ko wax ñu tudde ko almuhaddis tudde ko raawi wala ñu tudde ko nangam xam-xam yépp tàmbalee daal di am ay tur ndax lan mënta ñàkk contexte mooy indi ñu dajale alxuraan ndax bi alxuraan tasaaroo ci ni saxaaba yi saxaaba yi di faatu dee bu jotee da ngay faatu ñii seen dee ci saayit la ko sabab mooy xare bi ñu rey ci saxaaba yu bari ñu nit nañ gaaw dajale alxuraan balaa benn aya manqué waaw yooyu moo dem ba indi sunu mbooloo yii muy mbooloo mu tudde boppam Euh, jamaat euh, ahlu sunna wal jamaa muy mbooloo mi woote woon kere dimanche grand théâtre ndax gis nañ ni kat ñoom euh, fokk nañ wane ni ñoom ñooy ahlu sunna wal jamaa ndax am na jullit yoo xam ni li ñu dund du sunna te booloo wuñu rawatina nag turux yi moom it la la ko sabab nga xam ni benn bu ci nekk jamono moo indi mbooloo moom mooy kereewu jamono moo indi kooku ñu tudde ko tur wañ ko tudde histo euh, wàllu histoire historien la ñu tudde ko al muarrix mbokk yi kon nanu bàyyi caaxaan yi te dajewaat waxtaan ci ñi ko war a wax ndax kat dañoo wax ni euh, kuy tooñ lu nekk ci jàmm waaye kuy fayet du noppalu fekk tooñ a ngi am fayu di am kon kenn du nekk jàmm kenn du noppalu te loolu bu yàggeet euh, saay-saay bi nga xam ne lislaam rek la bëgg mu tasaaroo gën a néew doole te am doole lool nekk ak yow da ciy daal di profité la mu bëgg mu am ko senegal ku am nga ci euh, responsabilité ci aar ko ba dal gim ëpp le réew yu bari di réew yu jullit mu appelé leen ko te appelé wu leen mbooloo du alal la leen appelé waaye lu ko yàlla jagleel la ku ne xam la nga jàpp ni lii bokk na ci li ko waral nga nekk ci yooyu respecté sa moroomu mbooloo mi nga xam ne mi ngi fi waaye mënoo dëkk ci menn mbooloo moo xam ne sa wax yëpp yëpp mi ngi jëm ci waa tasawuf ba nga tàmbalee wax ak léegi ba nga tàmbalee bind ak léegi li ci ëpp lépp mi ngi jëm ci ŋàññi leen te boo leen di ŋàññi loo ci seppi ay nit ya jar ŋàññi waaw ña ña nga jàpp ni ñoo yow ñoo bokk pas-pas ñoo yam nga xam leen ngay waxante ñoom di dem ci ñoom sax xanaa nga génn leen ci waaye déedéet yooyu lañu war a bàyyi yooyu la ñu war a bàyyi de mu ne waaw ñoom ni ñuy woo nit ñi di leen yóbbu ci di leen woote di leen woo ci sunu boroom sunu boroom moo leen digal ndax wax na ci alquran suratu naxl euh, ad'u ila sabili rabbika bilhikmati wa maw'izati alhasanati wa jaadilhum billati hiya ahsanu sadaqallahu alazim nga woo nit ñi ñu jaar ci yoonu sunu boroom bii waaye na nga leen ci xikma xikma mooy da ngay xereñ nag fexe ba wax nit ki li nga ko bëgg a wax lépp te doo ko offensé te doo ko te xeeb te doo te loo ko yéefarloo xam nga baat yooyu kii te loo ko bañ xeeb bañ yéefarloo gii na génn ci seen wax ji bul teen waawoo mawisatil xasanati nanga koy xupp waaye waare bu rafet nag waare bu rafet gis nga wa jaadilhum na ngay ah, di jalogante ñoom di dàggasante ak ñoom di weccu ay kàddu ci na mu gën a rafet est-ce que loolu ñiy woote ci yàlla ni dañuy jubbanti nit ñi est-ce que ñu ngi koy def bariwu ci wax dëgg yàlla kon loolu la sunu borom wax de loolu mooy yoon wi nga xam ni moom la diggal alayhi salaam mu woote jëme ci ni ko moom asof jàlle ne xul haasihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين dafa na aaya ba suut yuusu la kon loolu déclaration la boo xam ne ak yeneen ayu yu niroog yi yu baree baree baree baree bare bare bare bari alayhi salaam waxal boppam ballixu anni walaw aayatan wa xaddisu an bani israila aaya bii fan yi maa ngi ko yooyu nag bu ñu nee moo tax ñii woo nit ñi di leen jubbanti mënuñoo noppi loolu sunu sëriñ si ñoo leen ci jiitu waaye amul benn téereem nit boo ci ubbi boo xam ni mi ngi yéefarloo mbokk jullitam yim nekkal fii ñoom ñëpp amu ci ñoom lañuy wax rekk ay fee jikko joo xam ni du jikko jullit ñu tudd ko waaye koo xam ne li la yitteel daal mooy tasawuf daal moom na fi jóg tasawuf moom baaxul tasawuf waa sawar lañu jaamukatu bàmmeel lañu ah seen pas-pas baaxul ba pare nga bëgg am jàmm loolu day dana jafe de dana jafe de kon ah, li tax nag woote jëm ci yàlla am solo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko Seydina Aliyu mu ni ko fa wallahi la an yahdiya bika rajulan waxidan xayrun laka min xumri niami subhaanallah xoolal lii nga lu mag nga xam ni ab jaam lott na ci wutal ko boppam fa wallahi giñ naa ci yàlla ni yàlla jubale benn waay kot ci saw nga wax ba mu jub xayrul ah loolu day làkk moo gën ci yow nga aman xam nga jamono ji ñu toll ku aman woto yi gën a cher ci ci ci ci ci ci kaw suuf ndax dégg naa benn bis ñu naa oto personnel bii lakk un milliard lay jar nga am ci loo xam ni kenn xamul nu mu parce que Umar ne am booba jamono yooya euh, euh, jur gii muy wax nga xam ne ay gileem lay doon boo ko amoon tey jii ci woto yu toll noonu wala nga am àdduna li ci lépp nga moom ko te jubaloo kenn kenn ci lislaam ci doomu aadama yi yow ki yubal kenn nit te amul dara ci matériel yi nga am bu yoon xeyaamee moo lay gën aw demeen xam nga loolu la ñuy wax waaye bu ngeen nekkee ci àdduna mën nga ko gën a jekk loo soxla faj ko mu sonn lool di jóge ko daanu di di di di di taqale waaye jubal na nit fa am solo nag nga xam ne dund la gudul jeex bu ngeen fa demee moom moo lay gënu demeen mbokk yi lii jar na nga fexe ba jubal nit waaye génnewoo kenn ci diine ji du mën a ñàkk nag nga ne alxulaan de nee na eh, ki def nangam kooku mooy yéefar kenn am pas-pas sàngam mooy waaye yow ñëpp dañ lay xam li la yow diw mii nga singali mooy waa tasawuf mii nga singali waaw ndax dafa yeneen mbooloo dafay nekk yu dul moom te doo leen tudd doo leen taas ñi adressé ci yow nit yow lañ bokk ah, di def loo xam ni moom it wax dëgg yàlla wax ji dafa xaraam jullit wax ko moroom jullitam nga ni ca pat waa tasuf fi ngay wax ñu am lu baax nga xam ko ah ñu bind lu baax nga xam ko doo ca wax mukk léeg-léeg kenn ci ñoom def lu am solo defal ko diina ji yépp nga ni ca pat doo ko tudd sax doo ko tudd sax yow daal wàllu googu déedéet waaye ganeen wàll ga rek yooyu nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi waa tasawuf it ñi ci bokk te mel ni man nañ jéem a xam lii ñuy wooye tasawuf mooy lan ndax ñaata junniy nit ñoo bokk ci uh, uh, tasawuf te xamuñu tasawuf ñaata kooku nag day day buy def defu kuy tàndale rek la muy def mën naa dëppoo waaye mën naa ñàkk dëpp waaye kan na ca biti bokk ci te di ko waxit nay wax ña ciy nekk ba noppi te di ko tuddoo te xamuñu ko ba pare lu ñu noppi te ba pare di jëf su ko defee ñu xam ni kii ku maandu la loolu moo di maandu kat waaw alxuraan noonu lay def de waaw day tudd ñuy def nangam waaye du ñu nit ñëpp day nangam xam nga bu ne waylul lil musalliina ah day mel ni bu yemoon foofu ñiy julli ñëpp dañuy dem sawara waaye da koo daal di def istisna allaziina hum an salaatihim saahuun mooy ñi nga xam ne bu ñuy julli. julli ga dañ koy doyee di dañuy juum seen julli day nangam day nangam day nangam kon alxuraan noonu lay waxe waaye yow ah, képp ku ñuy askanale ci rek nitu sawara la mbokk yi loolu ëpp na de te loolu du dëgg du dëgg de te ku ragal yàlla buy waxit day wax dëgg waaw mbokk kon daawa daa yi bi daa am nu mu war mel doonte njariñ li ci ku tedd ki digle ci nadara allahu eh, amraan samia minna xadithan fa ballaqahu kama samia faruba muballixin afasu min samia gis nga hadiisu Tirmisi boobu yàlla yàlla eh, naatalal cam si nga xam ni dégg na hadiis bu jógee ci noonu mu jottili ko ni ko déggee ci noonu yokk ko wàññiwu ko ndax kat bari aana ku ñu jottili sax day mu gën a dégg gën a wattu ki nga xam ne moom moo déggoon euh, lami muy jottili ah, ah, waaw am na kay am na gis ñoo xam ni du ñu ay saxaaba waaye nekk mm, mm, borom xam-xam boo xam ni jariñ na nit ñi ci ahadis yi saxaaba yi déggoon moom du taabii taabiina sax waaye yàlla def ci moom xikma ak xam-xam ak yàlla ba muy jariñ ci ahadis yi saxaaba yi solo loo xam ni njariñul saabay yi ci saayir tolluwul loolu am na gis nga ko gis nga ko waaw li yuballixa shaahidul qaaiba gis nga ko fa inna an yuballixa man huwa awaa lahu minhu na daal di jottali moom mi nga xam ni moo dégg fekke ki ki fekkewul te déggul nag nag ko daal di jottali moom ndax kat kii fekke amaana mu jottali euh, koo xam ni kooku moo ko koy gën a dégg waaye kaza bii qaid doon qaidal jalila baaxi xaalida doon xaayida buy sax dàq buy dund bu am importance ci jamono yi ak bis yépp loolu moo waral am na ñoo xam ne fokk ñuy wax waaye dañuy wax ngir yàlla subhanahu wa taala suñ sàmbay ñu nett li ca misra aman fa nit yàlla koo xam ni lum wax rek boroom xam-xamu sariya bi rek wax safaan ba waaw ba mbooloom nitu yàlla ki demee ci nit yàlla ki ni ko yow diw mii mënoo koo mënoo tëj gémmañam gi xanaa loo wax mu xëpp suuf mu daay yàlla yi kese ko tax di wax de waaw xoolal loolu ñun xamee nañ ñi yàlla yi kese tax ñuy wax waaw nga ne man ci laa bokk waaw ndax yaa ngi def bil xikma amu ci wa mawisa asana la yaa ngi koy def amu ci ndax yaa ngi def maasale jullit ñépp li ngay wax ci ñoom nga ko jëmale amu ci yow genn kuréel moo la yitteel muy ah, mooy ah, loolu mbokk yi dañ caa war a dañ caa war a dañ caa war a taxaw ndax léeg-léeg nit dégg woo xam ni lu mel ni yaayu lepina amunoo aleykum anfusakum laa yadurukum man dalla isa atadaytum Euh, déggin la boo xam ni léeg-léeg nit am ko ba mook euh, mook beneen aaya ba dinaa ko fàttali ko xaj na waaye nit ñi dafa am ñoo xam ni alayhi salaam dafa wax ni euh, isaa inna naasa isaa ra'aw munkara wala yuxayiruunahu yusiku llahu asa wa jalla an yaumum bi iqaabihi beneen riwaaya bi wax ni inna naasa isaara aw zaalima fa lam yaxusu ala yadayhim aw shakk aw yaumum aw yaumahum allahu bi iqaabihi minhu mooy nit ñi mbokk yi ndekk waxtu yu jot na bu yàgg bu subaa ñu tàmbale ci addis boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah الله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني